وجعل كلامي راصدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا وجعل كلامي راصدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا وجعل كلامي راصدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا بوكا دافي مبوكي غيناو بن سانتاتي بروم سبحانه وتعالى جولي سي سانغ بو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي دي زياره كوم باخو ديكا دافي سايو سيني كلفه ديني دي سي الخليفه العام لطائفه المريديه الشيخ سري محمد المنتقى بشير di ko ñaanal gudd fan ak ak mbooleem njabootu Serigne tubaak ak yëpp ba li mu yéenee liggéey lislaam jaaree ko ci soolu maamam Maulana Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu mën ko àggale niki noonu noonu lay nuyoo xalif généraux yëpp di leen ziyaara di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa bàyyi leen fi ba li ñu yéenee liggéeyal lislaam ñu mën koo matale niki noonu noonu lay nuyoo ñi nga xamante ni ñooy kilifa aada yi waaye di delluwaat di santaat bu baax a baax a baax téléspectateur Télé Prestige Thiès yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp di ñu suivre ci suñu émission bi nga xamante ni ñu ngi koy taxawal fii ci biir Prestige di seen émission bi nga xamante ni mooy la place à l'enfant dans la religion la place à l'enfant dans la religion yaatu loolu sabab léeg-léeg ñu sekk ko ànd koog yéen léeg-léeg it sekk ko ànd koog ñoo xamante ne ay yarkat lañu seen xam-xam màcc ci yar ak jubbanti léeg-léeg it ñu sekk ko ak ay ndaw yoo xamante ni seen objectif seen bëgg-bëgg jëmul ci dara lu dul diine l'islam ak jikko yu baax ndiki noonu noonu lañ koy àndaat ak yéen ba tey ak suñu gan yu mag yi nga xamante ni ñoom lañ dalal tey suñu plateau di waa Anwarul Xuluub nekk di liggéey liggéey bu am solo waaye seen liggéey it fés lool mu nekk liggéey boo xamante ni bu ñu war a bàyyi xel la nes tuuti bu ñu xuus ak ñoom ci biir waxtaan bi rek di ngeen xam bu baax a baax seen liggéey ak lan lay ci biir société bi nga xamante ni fi lañ nekk ah, balaa ñuy sori rek dañuy jox ñu nuyu ñu nuyoo ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi xanaa ñu jox ki nga xamante ne moo nekk suñu ndeyjoor di Serigne Malick Seck Serigne Malick bismillah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد البشر وشفع المشفع في المحشر الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم تاج العارفين مد كل أولياء الرحمن أبا العباس أحمد بن محمد بن السالم التجاني شرف رضي الله تعالى عنه وجزى الله عن جدنا ووالدينا وشيخنا ومربينا صاحب السيف والغزوات نجد الدين هو المجاهد قوي الكف شجعانا ذل الرقاب العدو المشركين بحر الولاية بحر العلم والنور شمس الشموس ولي الدهر جاهدنا مام أحمد داكسك رضي الله تعالى عنه وعن نبي أمين جناو بنيو سنت يالا جلتي ننتبي صلى الله عليه وسلم ا آه، نيب واي نك دي جيتال تي نيو te mooy kilifa diine yi bu ñu nee nag kilifa diine yi faaw ñu sepp ci ñenn jox leen nuyoo bi bu ko defee ñu yóbbaale ñëpp tabaarakallahu ñu ngi jox nuyoo bi suñu bàyyi suñu xarit Serigne Assane Seck Thiénaba tabaarakallahu mu jàllale nuyoo bu ah, xalifa général yëpp ba ci njaboot gi yëpp tabaarakallahu waaye di wàcc nuyoo ba ci waa Prestige di leen nuyu ah, tabaarakallahu ci ajuma gi hmm. waaye ah, di nuyu sama naataango yi nga xam ni ñu laa bokkal plateau bi Euh, sëñ Samba Kébé ñu ngi nii euh, moom moo ñëwee tabaarakallah sëñ Abdourahman ñu ngi noonu sëñ Mamour Guèye taalif tabaarakallah ak waa troupe culturel islamique anwaalu xulub ñu ngi nii toog ñu ngi leen nuyu ñoom tamit tabaarakallah macha allah. macha allah am na solo mu ngoogu ci nuyoo bu rafet bi ak xam-xam bi nga xamante ni jëm na ko fee euh, tasaare. Mm-hmm. ñu ngi koy ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko fay nuyoo. di la wax it fii sa kër la di la wax ahlan wa sahlan wa tarxiban bi la adadin ni ki noonu noonu la ñuy joxee ki nga xamante ni mooy Serigne Abdou Serigne Abdourahmane Fall moom it mu nuyoo ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur Télé Prestige Thiès alhamdulillah alhamdulillah alladi jaala sayidana muhammad akbara marjian li ahli lshariati walxaqiqa wa sunnatahu ajalla xallin li mashaakini alxuqumati waltariqa wa qawlahu منجى نفوس في بلابل غريقة وصدره منبع العلوم ومصدر الفهوم الدقيقة صلى الله عليه وعلى صحابته ذوي المعاني والفهوم العميقة وعلى آله أهل المراتم السبيقة نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بكي mbokki jullit نيو di ñep ma sha allah euh di jiital ci nuyo bi comme ni ngeen ko baaxoo commencé suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñi ngi nuyu ñëpp di leen ma sha allah di nuyu wat wa Prestige di nuyu Oustaz Samba ma sha allah suñu xarit suñu sopp ko ma sha allah ñu ngi koy nuyu bu baax baax baax di nuyu wat troupe culturelle islamique Anwarul club yep ñu ngi leen nuyu ndaxte bari nañ lool waaye ñenn ñi dañoo ñëw. teewal ñeneen ñi mm. def macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu fi ñu jógee muy daar oustaz Mouhamed Ndoye Diouf suñu sëriñ suñu kilifa tamit ñu ngi koy nuyu waat baax a baax di ko jox wàcc waayam ak waa daara ji yëpp macha allah ñu seen Samba Kar ko ñoom macha allah mu ngoog am na solo di nuyu waat bu baax a baax comme di nga ko waxee au passage suñu sëriñ boobu di suñu soppee di suñu oustaz di suñu lépp di oustaz Mouhamed Ndoye Diouf di di ko ñaanal moom it yàlla defar ko li mu bëgg ak li mu namm ci ñi nga xamante ni ñoom la yor di def ci ñoom xam-xam li mu namm ci ñoom yàlla suñu borom yombal ko euh, comme ni ñu leen ko waxee woon la place de l'enfant dans la religion lii la lii la c'est que yéen mooy andil ñoo xamante ni saa yu nekk bu ñu waxee rek xel yëpp ndaw ñi jubaat jëm ci lislaam waaye saa yu waxee rek wayjur bu nekk xamaat sa taxawaay ci sa ci sa njaboot euh, noonu rek lañ koy àndaat ak yéen ba tey. waaye laataa ñuy jox suñu gan yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu war a bégal tey ndax Alaaji Malick dafa am loo ma waxoon ndax maa waxoon tey boo ñëwee Prestige dinañ xam ne Anwarul Xuluub ñëwaan na tey loolu dangaa ñëw pour feddali ñu ko incha allah balaa ñuy jox suñu gan yi rek dañ lay jox nga ubbil leen ci alquran rek ñi daal di nuyu ak ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi ñi daal di dugg ci li nga xamante ni mooy suñu thème tey te mooy dawru shabab fi mujtama rôle bi nga xamante ni jeune dina ci biir société bi nga xamante ni fi lay yeewoo Alaaji Malick أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وترى الارض وبارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم kon ñu bàyyi suñu لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

السلام عليكم ورحمة الله قد يلالين السلام عليكم ورحمة الله قد يلالين يا سما مرم يا جامل صبرم جفني قلم ميتو أي ترم بربي ما فخنم jaamu ko war na yaram laa yoon mi Ahmad xoolal fi mu jaar ak boobu ngay liir bu ndaw nekk si biir mu àlla ba naatal toolam bi gerte dugub ji dundal njaboot gi santal borom bi فيكبر ربي جنة فردوسي قولا تدوسي دندقاني جه الله الله الله الله الله الله وسبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله يوسم مرض جام سبرب jëfe ndigalam moytu ay tereem buur bi moom na jaamu ko na yërëm la tax na mu yónni Ahmad xoolal fi mu jaar boobu ngay bu ndaw nekk si biir bu mu àlla ba nga raw naatal toolam bi gerte dugub ji dundal njaboot bi santal borom bi فيكبر ربي جنة فردوسي دولة دوسي دلو قاعدة الله الله الله الله الله, الله macha allah mu kon am na solo ci nuyoo bu am solo bi ah, mel ni ki lii mi ngi waaj a li nga xamante ni moom la sëñ Malick waxoon ah, xol yi na ci ni ngeen ubbee nuyoo ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy téléspectateurs yi waaye maa ngi nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni mooy sëñ Daouda moom mi ngi ngoogu ah, gis nga tey dafa ñëw sax assister si li nga xamante ni mooy seen émission ngir ni moom tolluwaay bi nga xamante ni am na ko ci ci daara ja muy eh, oustaz Mouhamed Ndoye Diouf mi ngi ngoo kon ci nuyoo bu am solo bi comme nañ lañ ko waxee woon bëggoon ñu waxtaanee loo xamante ni ci yéen ci loolu ngeen di yëngu muy euh, dawru shabab fi temps mooy rôle bi jeune am ci biir société bi mhm. mu mel ni ki yéen ci loolu ngeen di yëngatu yéen ngi formé ay ndaw di leen jàngal di leen yar ci diine mhm. kon loolu war ngeen ci mën a wax tey jii loo xamante ni euh, bépp parent boo xamante ni déglu nga ko wala yaa ngi xool yoon boo xamante ni boo fa jaaralee sa njaboot mu baax li nga fa boo ko dégloo rek tey di nga am foo xamante ni fa nga war fa nga mën a teg sa tànk kon mu mel ni ki loolu la bëgg a waxtaanee tey muy rôle bi jeune am ci biir société bi waaye laataa loolu rek sëñ Malick yow laa jox wala sëñ Abdourahmane ah, ñi jox la kon nga jàngam ci ci nan la ñu war a mën a xamee jeune wala ci ban ci ban ci ban dayoo lay commencé ak ci fan la yem Euh, ci loolu rek nga ñuy andil rek ay leeral laataa ñuy ñëwaat ci yeneen question yi nga xamante ni moo ci topp suñu maanaam. waaw euh, macha allahu taala euh, question bi am na solo mu mel ni buñ nee jeune hmm. maanaam comme thème bi buñ nee maanaam ban rôle la jeune bi di jouer ci hmm. maanaam ci société société ba muy dund. Hmm. buñ ko waxee ci gàttal bi kulli xulaas. mu mel ni jeune buñ ko waxee buñ nee ay shabab ay shabab buñ ko bëggee xam mi ngi commencé ci maanaam ci ndaw ba mu ba mu mesurer buñ nee mesure nag dafa dafa am luñ koy xàmmee bëri nañ koy xàmmee bokk na ci karaw poqtaan bokk na ci am 18 bokk na ci bokk na ci bokk na ci ah kon jeune fi muy commencé ñu ngi koy xamee ci ba mu amee. Euh, maanaam 18 ans voilà maanaam ba mu jotee mesure jëm ba mu am euh, ba mu am euh, ñeent fukki at moom ñu ko wax waaye ngi am na ñu ni xam sona waaye am na ñu ni arbaxuna hmm. waaye nag li gën a wér mooy arbaxuna waaw ndax boo demee ci aaya ba ah mu ngi naan xatta ida balaxa الشدو وبلغ 40 سنة اه تا بو خوله مانام يونتي بري سان بوروم مين لين يوني باج امي نين فكات كو دي مل يونتي بن صلى الله عليه وسلم كون آه، فوفو لا ني خامي ني كات كون كي كات مانام دوغنا سي زين موي بوم مزيري واي بو امي 40 عام فلا زينم جيخه مو دوغ سي نك آه، شيخو خا tabaarakallah am na solo mu ngoo kon ci ni mu leen tënkalee ci jeune ci ci yan ci yan at lañ ko mën a jàpp daal fa la war a mën a tàmbalee ak ci yan euh, at la mën a jàpp ni fa la fa fa la yem waaye ñi gis ni phase boobu noonu ñi koy wax phase adolescence muy phase boo xamante ni bu garaaw la ci ki nga xamante ni mooy mooy mooy ndaw li ngir ni dafa dafa nekk ci moment boo xamante ni yàlla daf koy soxla mhm. seytaan yi day taxaw soxla ko mhm. mu nekk phase boo xamante ni laaj na ay waajuram gunge ko soutenir hmm. hmm. hmm. ah, ko ci jamono jooju ba li nga xamante ni mooy avenir am bañ a yàqu waaye bu génnee it mën a ci ñi nga xamante ni taxaw société am di taxaw diineem xëy na loolu dinañ ci ñëwaat ci biir yeneen yeneen biir point waaye foofu li ñu bëgg a wax rek mooy ci jamono jooju noonu ndax ndax du ñàkk mbir yoo xamante ne dañ koy gàllankoor ñu koy jural ab loraange ci ci avenir am wala dina ci ci yan la mën a jaaree daal mucc ci ci phase boobu nga xamante fi la toll sëñ Malick waaw eh, ndaw li ndaw li euh, dafa bari ay gàllankoor. Hmm. yoo xam ni mën na koo gàllankoor. Hmm. yaa dégg ndax maanaam borom bi subxanahu wa taala maanaam dafa fonk ndaw. fi mu salaa salaam dafa fonk ndaw ba nga xamante ne bii nii maanaam daanaka yenn taxawaay yu bari hmm. lu mel ni ay xare. bëri na ay ay xare yoo xam ni day fekk saxaaba yu mag yi. ñoom euh, Seydina Omar ñoom Abubakar Sadiq ñu fa waaye dañuy jël ku mel ni. Euh, Osama ibnu Zayd wala ñu melni ko ñom euh ñu jité manam xare ba lolu limi wone moy jeune dafa am dafa am importance waye nak amna ay galankor ndaxte manam bo mesure da nga am ay gharisatul jinsiya gharisa yoy bo xasse ba mesure rek muy commencé léegi nak yaa ngi am ay sentiment yaa ngi yëg waaw ya ngi ndax dundum adam yi la ay bi nee na انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه اه له اك زينه من نعم، مرحله الشباب ندخ بو جوتي مزور رك داي كوماس ما دوج تي له موي ياغي سانتير جاب نيك دا ورا ديم بار دا ورا اند جيغي دا ورا فو دا ورا فو ياك سا بوك دا واو وزينه نك بو ري بام 25 جيم جيم 40 داي كوماس دي تاتال فلو ياغي سانسا ياغي ياغي نانغ ياغي جيم خول سا يو ييب ay gàllankoor la yoo xam ni ndaw bi maanaam dafay am ndax jamono jooju maanaam yàlla ci lay soxla waaye seytaane ci lay soxla kon dafa bëri ay gàllankoor yoo xam ni ndaw bi maanaam dina ko jànkonteel muy day day bëgg foofu mbiru àdduna képp lay bëgg hmm. waaye nag Ah, bu ci bëggee mujj am na ay solution sëñ eh, Samba loolu dinañ ci ñëw ci solution ci yeneen point nga tënkal ñu ko rek euh, laataa ñuy laataa ñuy tàggatoo waaye mel ni ki sëñ Abdourahmane dégg nga Alaaji Malick li mu wax ci yi nga xamante ni mooy marxala shabab fi mu commencé fi mu yem mhm. waaye it ci phase boobu nga xamante ni fi la toll yi ko mën a gàllankoor ba mënu cee jaaree yàqule ci avenir mhm. waaye yi nga xamante ni moo ko mën a dimbali it ba mu mën a protéger li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy li yàlla soxla ci moom mooy mu nekk insaanu saalih waaye bëggoon nga tënkal ñu rek ñàkkul ni am na mbir yoo xamante ni uh, bu koy gàllankooree ñan ñoo ko war a taxaw ak ci nan lañ ko war a mën a taxaw xëy na ay way lay doon wala ndax dafa am benn borom benn xakim bu wax ci loolu lu am solo dañ ne way jur yi nañu xel ni xale rek mënuñoo mënuñoo mënuñoo mënuñoo yóbbu seen bop ci yoon bu baax waye fokk ñi leen gun fokk ñi leen meññi ñi tété leen ci yoon bu baax wa insha Allah nasul fii naa ala ma kana awadahu abuhu dañ di wax ni wa ma daanal fata bi hija walakin yuawidu tadayuna aqrabu lool nan lañ ko mëna déggé Allah ji ki nga xamante moy Seigne Abdou Rahman Fall wa ma sha allah oustaz Meysa oustaz Samba mën naa ni soal bi amatina solo na sëñ xaaju Malick leeral na lu bari ci xale nu war a commencé fu mu war a commencé ndax boo demee ci arab dafa wax waladun da ngay seen xale yu bari buñ ñu commencé am yenn âge yi li leen dugal si naka sulu noonu mooy dañuy gaaw a yëg seen bopp te arab dafa wax waladun waladun bi ñu ko waxee mooy xale te waladun bu ko bu fekkee da nga ko def chiffre dafa melni dalay jox li la mari waxon sank ndax waw bu fekke dang koy sifur mi nek 6 dal nek 4 langi ñu nek 30 muy 40 ans kon xalé ku mën na ni xalé diko dagge ba mi juddu ba mi am 40 ans xalé la waye nak nga wax lu am solo nak te niki bu nek ci xalé ba am yenn galankor yu ko yu koy dal su boba am na ño xamanteni am nañ ci liggey bu am solo bokk na ci lu jiit si ñoom mooy seeni waajur ndaxte xale boo ko yore daanaka da nga koy tàggat ci ci wàllu diine ndax tàggat ci wàllu diine boobu moom muy dimbali xale bi ba nafsoom dina xam fu muy teg tànkam te tàggat ci wàllu diine nag ñun mun ñu ko jàppe fenn ndax su yoon seen asalaam moo ñu ko jàngal moo ni képp ku bëgg sa àdduna jag damal nga wuti xam-xam ku bëgg sa àllaaxira jag demal nga wuti xam-xam waaye nag ku bëgg ñaar yépp jag demal wuti xam-xam te ku bëgg xam-xam demal jàng alquran man arada dunia fa alayhi bil ilm wa man arada al axirata fa alayhi bil ilm wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilm wa man arada al ilma fa alayhi bil quran kon su boobaa ñi leen taxaw mooy seen waajur yi ñoo leen wan a taxaw wal leen yoon ndax da nga wax lu am solo sànq xale yi day toll foo xamante ni iblis da koy soxla suñu borom subhanahu wa taala da koy soxla te nag pour nga dem di wéetal yàlla pour iblis bàyyi la laa lay sori mm. fen nga ko mën a jaarale muy sa bakkan nga fexe daa koy musal mm. ci ay yoo xamante ni mooy gàkk-gàkk mm. ba tax su ba tax su boobaa danga mën a jubóog su borom subhanahu wa taala kon daal li koy waral mooy euh, parents yi gën te jàpp war xale bi mm. tamit xale bi tamit ak ñi muy àndal ci mbedd mi bokk na si tamit ba si sëriñ dara tamit am na benn rôle bu mu war a def si xale bi mm. rek macha allah bu ñu si yeneen question yi danañ gën a leeral ci loolu mangoo am na solo comme mi leen fàttali ba léegi yéen ak ànd ak euh, ñi nga xamante ne ñooy waa anwaarul quluub mm-hmm. euh, ba léegi rek ñoom li ñu tuddee seen seen bi mel na ni mi ngi mi ngi mi ngi wuyu ñi nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy téléspectateurs yi ndax lépp lu ñu wax rek euh, ci xol lay jëm ci xol lay jugee te mu te mu tegu ci xam-xam waaye bu fa jugee ci xol yi lay duggaat mel ni ki boobaak léegi ci leeral yi nga xamante ni leer na nañ ñi koy jotale mboolem ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi waaye yéen it ngeen ni yarkat di yëngu ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee tey muy muy muy dawru shabab fil mujtama mooy rôle bi nga xamante ni jeune jeune mi ngi koy joué ci biir société bi ngeen i tàggat ay ndaw di leen former ci yar leen ci wàllu diine yar leen ba bu ñu mën a taxaw diine bokk ci ñi nga xamante ni dañuy yëkkati drapeau l'islam ah, mu mel ni ki balaa ñuy dugalaat benn question rek dañ leen di jox ah, dañuy joxaat suñu gani ñi barkeeluwaat ah, bu ko defee ngeen feeñalal ñu tuuti ci seen liggéey nan ngeen di doxalee xale yi ci li nga xamante ni moom moom ngeen yëngu fële nga xamante ni fi ngeen nekk kon ñu joxaat suñu gani rek ñi eh, barkeeluwaat نتعلم حبا في العلم ونسير بحب وبعاز والله تعالى يرزقنا من نور الحكمة والفهم والفهم طالب علم لن تخسر ستنال ثوابا وستجرد تتسير إلى علم وله كم تتعب كم تسهر بالعلم تنار بصائرنا ابني مستقبلنا الزاهي تسمو بالعلم مشاعرنا نتعلم علما ينفعنا والله خالقنا يرفعنا لكننا نتواضع macha allah mi ngi mu mel ni ki ci biir uh, way bi nga xamante ni moom la ñu way léegi uh, dafa mel ni ki mi ñuy jàngal sax ndaw war nay farlu ci li nga xamante ni moom mooy xam-xam. ngir ni moom moo ko mën a gunge. mu mel ni ki comme ndaw ju baax yu mel nii ndax sëñ Malick mën naa ñàkk ci biir société bi ndax dañ naan uh, ndaw ndaw mooy porte développement bi gën a rëy bi société bi gën a soxla.

ci nga waxe rek foofu laay tontu te mooy réew mi dafa mank ay ndaw yo xamni ñoko wara té ndax ndaw d'abord dañ nan manam ndaw lu bax bo bëgg am bo bëgg am dom ju bax mi commencé ci yaay ja ndax kullu shay'in la asasun wa asasul waladu saalix almara as salihah kon ala kulli xaalin boo bëggee am doom ju baax faaw nga commencé ko ba nga nekkee jeune ba nga nekkee ndaw ah, bëgg a tànn soxna faaw nga faaw nga commencé ko foofu yaa ngi dégg ca soxna sax ndax ah, yàlla nee na ah, wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbih hmm. waaye nag walladi xabusa laa yaxruj illaa nakida hmm. lu baax lu baax lay génn waaye lu bon mënut a génne lenn lu dul lu bon hmm. kon bu demee noonu nga xam ne bëri nañ ay ndaw ñoo xam ni maanaam jaarin ñu fañ war a jaar ah kon réew moom pour mu dox day xaw a jaf ndax ha, réew mi dafa nekk réew moo xam ni réewum lay site mhm. mooy tubaab bi dafa ñëw fekk suñu maam yi defar li defar ba pare mhm. tubaab bi ñëw fexe ba yàq léegi nag maanaam fi ñu fa ñu gàllankoore mooy fi ñu wàcc suñu an dem ci ana jàmm ndax wolof nee na ah ku wàcc sa ànd ana borom fekk fa boroom mu topp loolu moo ñu dal suñu maam yi bu ñu leen toppee rek dara du xew ndax am nañ xam-xam bi ah ñu néew la woon tubaab bi nekk nekk ay mille personnes tax te liñ liggéey ba léegi ah, xale boo koy jàngal naan ko ah, rabaajoor taatànk ah ceen gu tooy yooyu ci olof la ñoo koy jàngal nga xam ne du taxaw ay rabaajoor hmm. ah ay ñi meen tël lam galgal nga xam ni lam bi dafa galgal boo xoolee nga xam ne lii kat lam galgal doo ko fàtte waaye loolu fexe nañ ba ñëw tëwru jël seen i kilifa jox ñu ko ay dégg ñu sol seen i sol yi di wax seen i léegi koo sa ba maanaam boo waxul quand même day mel ni bokkoo faaw daal nga dugg ay quand ay nangam est-ce que jàppoon it complexe ba léegi dugg na ci jeex na loolu nag ca base ba la com complexe bi bañ fexe ba dugg suñu biir fexe ba jël seen école def ko hmm. fexe ba xeex ñu jël daara yi gannaawal hmm. ba taxawal ci seen seen euh, école di yar yar suñuy doom ndax ku yar sa doom def ci moom jikko jikko yëm bëgg kooku moom mënoo fexe ba doo mel ne moom mënoo ndax yar am solo yow mi boo toogee jàngale xale yi ngay jàngal même geste yi ngay bu ñu àgg bu ñu àgg seen kër ñoom dañ koy def boo defee nii dañuy xam nii lay def bu ñu àgg seen kër dañ koy jéem a def kon loolu moo ñu tardé suñu suñu réew mi am na solo ab sëñ Malick ci leeral yu am solo yi Eh, lim wax mom mënuñu ci doli dara dañuy jox señ eh, abdourahman rek mu ñew ñu ci nga xamanteni moy yeen siñ la ndaw li nga xamanteni mo paré pour jariñ société yeen siñ la wara mëna wané bañ né ki kan mom paré na ko pour taxaw li nga xamanteni moy diiné ji wala société wa ma Allah oustaz samba euh nga layal lu am solo ndax tay way way dafa wax ni man ba dara hmm. waxtu sigari ila al huda ila huda hmm. istiraaxa waxtul kibaay mu ne képp koo xamante ni da nga hmm. sa waxtu ndaw rek boo nekkee mag dinga am noflaay hmm. waaye nag ndaw li nga xamante ni réew mi ñu ngi koy yaakaar muy ndaw loolu noonu ñu ngi koy xamee ci ay jikkoom ndaxte hmm. sànq Oustaz Malick dafa wax lu am solo muy yar éducation dafa nekk lu am solo parce que mooy base parce que nit ki booy tabax li ngay njëkk a def mooy fondement kon xale bi fi nga koy njëkk fondement bi mooy ci éducation kon xale bi éducation ak yaram si nga xam ne kat kii kat su màggee dafay nekk koo xam te ni day taxaw réew mi waaye tamit si ay jëfam éducation si ngay xam ne que xale bii kat bu demee ba nekk mag tamit si yàq réew mi lay lay bokk. Hmm. te éducation yi bokk na si muy yaru diine. Hmm. te léegi yaru diine googu lañ manqué. moom lañ néewle. Hmm. da sax koo xamante ni dafay gis école boo xamante ne école jullit lañ jël doomam yóbbu si ñi nga xam ne duñu jullit. loolu lépp après dafay def benn asaara boo xamante ni da ko xale bi da koy am. mooy jeexantal. macha allah am na solo est-ce que jeexantal yooyu noonu it bi ab yi ñuy dund jëf su jeexital ndax dañuy wax l'homme est le fils de son environnement al insaan ibnu bii at yi est-ce que yaakaaroon ni bii abu bon moo sabab ndaw lu fi màggee lu bon ngay gis lu lu lu lu bon ngay dégg est-ce que loolu deful ay jeexital it ci ci ci ci sabab li nga xamante ne moo yar lu bon waaw jafe-jafe yi oustaz comme li ma wax rek ndaxte léegi jigéen bu la rombee sol ay yër yu dagg ba pare euh bu la xolé melni mom lim sol dafa bax kon jàpp na ne kon ñun ñi ngi si biir boo xamante ni kenn xamul nu mel. kon rew mi fu mu toll. légui góor dalay lay romb wat wat go xamanteni kene kenn xam nu mel. te heure bu ko gisee mi ngi sigir melni ku firi. kon jàpp na ni kon lool mo bax te lool nak moy ak roy la fu ñu ko royee moy ci ci walu média yi. whatsapp yi nga xamanteni ni indil nañ ko. ñukay jox suñu doomi te suñu doom li nga xam ni ci utiliser. loolu tamit bokk na si li nga xam ne moom mooy yaa yàq bi bi abi mm-hmm. am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. kon mi ngoo kon uh, ci leeral yi am solo yi uh, balaa ñuy ñëwaat rek ci ñaari question yi nga xamante ne moo ci des ñi tënkee ko uh, jox suñu sëriñ bi it mu may ñu benn taalif ndax am na lu ñu waajalal loo xamante ni lu rëy la. waaye dañuy joxaat rek ba léegi ñu dugal ñu benn way bu ko defee ñi ñëwaat yi ci li nga xamante ni bëgg nañu leen ngeen leeral ñu anwaarul xurub moom moom fan la toll li muy liggéey. ak euh, boobaak léegi lan la produit bi rek ah, loolu it jaar na it téléspectateurs yi xam ko balaa ñuy balaa ñuy balaa ñuy jeexal incha allah kon ñu jox rek ñu dugal ñu benn way ah, waa yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi waa Rizi ñi ngi wax ni suñu waxtu li ci des bariwul waaye dinañ may tuuti rek ñu jàllal li nga xamante ni moom la ñu bëgg a jàllale bisimilah. salaamun aleykum nuyoo yeneen ma soññaat far ma xërtal ci way ji ba tax muy biral saa yu bii di wax mhm. anwaarul xudum nga la jarnee nu kan ñu kër leen waaw la imaam di wax si luñ bokk fonkaat ko muy suñ nga mag ñu gën koo wax a foofu gën koo jëloon mhm. bigaan naa si yéen man dikkaan naa si yéen kon ñëw naa si yéen kon yeneen àndoon mhm. déglooti leen ñu digte leen suñuy xibaar biir précise danoo yëgal ñuy dóori waar ab tele laaj ci biiru kees bu kenn Mm. ndax fu ñu fi xëy ñu génn faak lu gën a riis daa am njariñ tey dindi nit ba mu jaar si yoon ndax dindi nen nitu safan bi ñu jëngaloo mm. fa daana naan ay sàngara ak yeneen yu bon mm. ñoom ñoo ko jël seeg yu mbiram ba mu jigéen ñoom seen mbir daa wértal yar neneen ko xool yuuti ba ñoo ñu faak ay xibaar yu neex ko noonu yéen mbokk réew mi ñëw leen te seetaan bii te dégg waaw góor a jigéen mag ak ndaw ñu ànd machallah mi kon am solo ci taarif bi nga xamante ni ah, mu di moom waa précise ñëpp ci war a def dara lu rëy la te li mu jàngale lu wér la ko xëpp askan bi la tele la boo xamante ni képp koo xamante ni yaa di di koy ñaanalaat baax a baax ki nga xamante ni la DG PAP Doumbia moom mooy di ko ñaanal ak personnel bi nga xamante ni ñu ànd ak ñoom moom di liggéey ci liggéey bi nga xamante ni moom la moom la kii gis ba tax mu def ci wayam yu am solo yooyu waaye it comme ni ma ko waxee sànq anwaaru xuru soxla nañu mu wax ñu lan laa xamante ni fi la toll fi toll nii ak anwaaru xuru moom fan la bëgg a ak lan la ci ci ci ci ci jamono ji ñii fan la fan la taxawee daal bëgg nañ ko xam. waaw tabaarakallahu euh, anwaarul xulub nag hmm. defe naa nañ bañ fa ñëwee ñu ngi doon junj lu mel na hmm. muy euh, ñu ngi doon waajal benn album. Hmm. boo xam ne ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon waajal. Hmm. Euh, album bi boo xoolee rek day duggaat maanaam ci thème ndax album bi ñu ko tuddee yóbbalu ndaw ñi. yóbbalu euh, ndaw ñi nag baat bi rek boo ko dégg war ngaa xam ni am na solo. muy ay njàngar yoo xam ni moo nekk ci biir ci biir album bi. muy six titres six titres yu am solo yoo xam ni. ndaw bi bu ko dégloo dinañ ci ko dina ci jaar ba baax barakallahu mu mel ni loolu moo nekkoon moo nekkul suñuy tànk hmm. ah, ba ñu génn ko hmm. mu nekk lu lu disponible hmm. kon loolu foofu la Anwarul Qulub toll toll fi mu toll ci liggéey waaw tabarakallah ci liggéey am na solo kon mi ngoo kon ci Anwarul Qulub ah, ci loolu nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy fësal noonu ci seen liggéey fu mu toll ah, di soññuwaat bu baax a baax a baax askan nit ñi bàyyi leen xel ngir ni diine la ñuy liggéeyal lislaam la ñuy liggéeyal ah loolu nga xamante ni moom la ñuy moom la ñu doon dox ay weer tey jii loolu noonu disponible na ci yéen ñëpp ngeen mën koo am xëy na loolu dinañu ko jàllaleel ci yeneen ci yeneen kàddu ah, nan ngeen mën a def ba jot ci album yooyu nga xamante ni moom la ñu moom la ñu jénnee ah, mu commencé tas nag di wax ni moom képp koo xamante ni yeex nga rek doo ci am ngir ni yu am solo rek la waaw sëñ Malick Ah, mungogo kon ci leralali mhm. kon abdourahman kon ci teji rek dañuy wax ni 5 euh, minutes moñu déssé waye ci teunk rek nga teunk kon yi nga xamanteni moy ndawli ci liñ doon wax ci dawru shaba fi mutama ndawli en tant que mom ci jëm bopam mu taxaw ngir jariñ société am yeen melokan la wara taxawé ci bi société am ñan la wara top ñan la wara dégg bu mëna bax waaw dafa melni sama wax ji kon dafa rofo bu haj malik naxté euh ndawli mom daanaka bu ñu bëggee mu jariñ société bi hmm. nañu roy li fi suñu mag ñi bàyyi ndaxte sang xaalis dafa wax ni ku bàyyi sa ànd ànd boo dem fekk fa borom hmm. ñun nag dañoo bàyyi suñu ànd kon dafay jaadu ñun ñun ñoo xam ne ñooy jeunes yi hmm. ñooy ndaw ñi ñu dem fekk suñu ànd ba fu mu nekk ñu dem jël ko xam ne kat suñu moomeel la su ko defee kon nañu delawaat gën a jàngaat suñu bindu mag ñi nga xamante ni bind nañ bàyyi fi wax nañ bàyyi fi gëm na ne incha allah lolu buñ ci topé rek buñ ci roy gëm na ni fi ñu yegg bëgg yegg dañu fa yegg parce que borom wax ka dafa wax ni araka tarumul mal wal jaaha rifaatun wa ma hakaza ahlul wala wa anibu kon tire yooyu am solo la su ko defé ñun ndaw ñu lool moy suñu roy way kon nañ ñu da koy jël xamni ko kat yooyu mooy jikko yu bax yi solo malik en tant que ndaw ci bi société bi digganteem ak boromam yeen taxawale ci wara taxaw ak digganteem ak moromam yi nga xamanteni ñom la bolé mom la bokk ak di dund ak ñom ci bi société bi waaw ndaw boo xoolee maanaam ay rôle yi mu am maanaam li mu war a taxawee ci digganteem ak boromam mooy d'abord dafa war a gëm boromam maa ngi dégg ndax kull mawludin yuladu alal fitra fitra képp ku nekk ba nga juddu danga gëm yàlla fa waaye nag waaye fa abawaaw yoo xaw yi daani aw yu nasaraan aw yu majjisaani say waajur ñoo lay def yi waaw bu ñu la bàyyi sa bopp rek yàlla moom def na li mu def ci yow waaye nag ñi nga fekk si ñoom ñoo ñoo lay ñoo lay détourné kon euh, ndaw li war naa am ay comportement bu baax ginnaaw ginnaaw bañ ko bañ koo xamale mm-hmm. sànq yaa ngi wax lu am solo mm-hmm. mooy al euh, insaanu ibnu bi atihi bi aday def jeexital am ci doomu aadama mm-hmm. ndaw li nekkul ni fépp la war a mën a dund déedéet ndaw bu boo bëggee mu am jikko ju baax bu bu bu juddoo da nga ko yóbbu daara ja hmm. du dégg lu bon du ko gis hmm. lu baax lay dégg jàng alxuraan kese lay def hmm. loolu boo ko defee ci euh, ndaw bi ak yëpp ko bi ay yoo xam ne day jeex na ci moom dégg tey ji euh, euh, boo demee cana ba tey ji ndaw ñi maanaam li ñuy foowee mooy zikkar dem wasiba ah, ma ndax jàng alxuraan nga la gën moom alxuraan loolu xam naa ci dara am na ci koo xamante ni maa moom benn la ñu muy xam ne buub Ah, mom fa la nek manké nuyu momit au passage ah, di jambar lol li nga wax mom lay dundé alcorane rek lay noyé ah. jeex kon am na solo kon lol bi abo bo fu dundé mënu fex mbado bax hmm. bo bañé sax da ngay bax bo bañé sax da ngay bax kon mom ndawli ndawli pour mu am comportement bu baax faaw faaw ko jitu ñoo xey ko bon bu buñ ko ko wonul mënu ko am kon fofu la commencer mangoo am na solo am na solo comme ah, xam naa nag li duuf yëpp dafa xajandoowul ci biir cin bi waaye li ñu waajaloon ëpp na lii wax dëgg yàlla ngir eh, waxtaan wala tomb bi ñu jël moo rëy te riche mm-hmm. te ah, bu ñu ko doon wax fii fii ba eh, quatre heures de temps du fi jeex ah, waaye nag moom arab day wax ni xayrul kalaam maa qalla wa dalla te li ngeen wax ni tegtale na képp koo xamante ni déglu nga ko di ci mën a jariñoo kon dañuy jox rek suñu gan yi ñu may ñu rek ñaar ci yi nga xamante ni mooy yi nga xamante ni moo aju ci album boobu nga xamante ni moom ngeen jénne ñu daal di tàggatoo ba beneen yoon rek incha allah am na solo mais xale bi dafa am woy bu mu fentoon ndeysaan ah. daa ko jëmale si précise nga defee ñu xam ñu daa ko tëjee rek waaw waaw ñu tëjee ko ñu tëjee ko beneen yoon insha allah xam naa da ngeen tàggatoo rek bu ko defee ma jox ko moom mu tëjee ko insha allah ah, ci li Alaaji Malick yow la ñuy jox nga tëj rek ci li nga xamante ni moom lañ nekkoon doon waxta mooy dawru shabab loo ciy dénkaane dénkaane mu daw rek ah, ñi yamale ko foofu ba beneen semaine insha allah waaw tabaarakallaahu ñu ngi santaat yàlla hmm. di julliwaat ci sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu li ñuy dénkaane rek moy euh, lu ndaw moy yow jeune yow mi tollu jeune ah premièrement bi la wax moy boy takka so na nga xol lu baax ndax boko deful bo bo takke so na so bon pour nga am jabar ko ba day new maam lolou lu new da tabarakallah kon liñ lay denk moy nga xol manam bu la ci tarbije bu la ci ndank bu la ci nangam je xol jukko je mu baax tabarakallah ta amé sa dom yobbu ta daara école français yi dañ yàq nit ñi rek tubaab bi ñoo ko fi teg dañ yàq nit ñi nañ jël xale yóbbu leen ca daara ja ñu jàng alquranul karim bu defee ñu baax fa fos ku bëgg a baax di baax ku bañ a baax di nga baax hmm. tabaarakallah kon loolu loolu la ñuy tëjee tabaarakallah macha allah am na solo si abdourahman waaw xanaa li ma li may tëjee rek comme li ko suñu borom subhanahu wa taala waxee hmm. inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura hmm. kon ñun ñi nga xamante ne xale yi maa ngi koy dénk di ko dénk sama bopp ñaari yoon lañu am ñaari yoon lañ fi bàyyil te ku nekk xam ne lu baax xam ne lu bon kon nañ jéem a sóobu si yoon su ko defee bu borom bi baaxal ñu dafay di ko dénk sama bopp di ko dénk sama morom yëpp macha allah di leen di di nuyuwaat oustaz bu baax a baax xam naa ne incha allah dafa mel ni loo moo nekkoon macha allah am na solo comme ñu jox suñu suñu suñu sëriñ bi mu def lu li nga xamante ni moom la ñuy waajaloon rek bu beneen yoon bismillah ñoo ngi door di sant yàlla di sant yàlla mi bismillah ci borom te xam ni mooy buur bismillah ñoo ngi doon di sant yàlla mi buur delluwaat ci borom te xam ni mooy xam sa diine tàppeel yow de li may waa yow mi bëgg a xam sa diine tàppeel yow de li may waa bëgg xam sa diine tàppel yow de li may waa émission mag ñi noonu mi ngi noonu am na solo mi ngi noonu mm. am na solo masha allah masha allah daw rek cassette bi dang ciy jënd eh, ngir ni amna solo sa sa sa xarit lañ ko way man lañ way kon dañ leen ni dañ leen ni satar bu baax wa anwarul qulub ñi ngi nonu eh, nek ay jambar lool di wax ñepp ñu bayi leen xel ngir ni seen liggey mom wax deug yalla li li li li firnel na lu bari bari ay ndaw lañ yo xamanteni fi lañ nek di liggey liggey bu am solo liggéey di liggéeyal lislaam waaye di liggéeyal ndaw di liggéeyal ñi nga xamante ne ñoo yarkat ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir société bi te bëgg seeni i njaboot rek baax a ah, di leen wan yoon waaye di ko jaarale ci ñi nga xamante ne mooy Oustaz Mouhamed Ndoye Diouf moom di suñu sëriñ di sëriñu daaw dama ma lay taxaw moom mu nek jamba du suñu soppe du suñu sëriñ du suñu lépp xana di len jox dig daje bu men semé rek inshallah ñi andata ak yéen ci benen ci benen façon ak inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannah yuqatiluna